yéenekaay yi ñu dalal Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye ministre de la santé njiit réew mi Macky Sall sant na ko mu taxaw nu mu gën a gaawee ci paj mi wopp ci réew mi lëkkatu ñu juróom benn yëf la ko ne na ko lijjanti ngir santé bi mën a dox ni mu waree ci Sénégal pil yéenekaay bi journal bi mi ngi ñuy leeralal juróom-benn yooyee yan ak yan la Walf Quotidien tënkee ko ci ne xemes aux urgences Les Échos dolli ñu ci ne toogaay amatul ci ministre de la santé bu bees bi di docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye ne bi ñuy def démb ndajem conseil des ministres bi njëkk ginnaaw jëyee jëwoon ci hôpital bu Tivaouane président Macky wax na fa urgence gi am ci joyandi système de santé bu Sénégal moderniser hôpital yi mi te taabalam fu inde bi di folote maanaam yi mu jàpp ne yooyee la ñu a taxaw war koo joyandi ngir santé bi mën a tegawaat ciw yoon école de formation yi ñuy former agent de santé yi ci public bi comme ci privé bi journal enquête nee nañu président Macky nee nañu leen audité xool leen biir ak biti ba xam li ñuy jàngale lu mu soleil national li ñu loolee ci la bokk waaye du loolee rek yi mu santaane ngir ñu moderniser hôpital yi réew mi ak ni ñu yore ci juróom benn mesure feneen lu ñu dëkkee teg ay mesure te ba léegi saafara amugu ci Sud Quotidien nee moo di ci wàllum inondation yi ci Kër Massar Sarr ne ngi ciy dugal ay milliards te nawet bu ñëw koppar yu ñu ca def inondation yu ñu ko dënniix te du feeñ fenn sud wax ñu nit ne ñoo ngi wax fukki milliards ak benn yu war a dem ci ay travaux ngir luy jàllale ndoxum taw mi ba du taa ci quartier yi nga xam ne plan d'urgence ba yeggu fa ñu yegg ci l'observateur yegg leen leneen loo xam ne yéenekaay bi ne nañu bu ñu ca yeggee jafe-jafe yu rëy la nar a jur ci réew mi xarum tabaski l'observateur nee nañu lu nar a jafe la ci tabaski ren gi ne xont bi di aliment de bétail beeg ni mu jafeek ni mu seere bu ñu moytul dina feeñ ci xar mi ba ñëpp yëg ko Mamadou expert jiiteet kuréel gii di interprofessionnel avicole du Sénégal mi ngi koy dëggal ci biir l'observateur coalition yeewi askan wi ndaje mu rëy mi ñu bëggoon amal suba ci àjuma ji ca place de la nation di place obélisque du am vox populi nañu préfet bu ndakaaru moo fa jaar moo leen bind ab leetar démb xamal leen ne seen manifestation bi ngeen bëgg ma autorisé ko munta nekk ndax date bi ngeen jàpp ak heure bi ngeen jàpp ak barab ba ngeen jàpp dafa am ñu leen ci jiitu fédération démocratique des écologistes du Sénégal jiitu nañ leen ci ba demander autorisation journal bi nañu waay yeewi askan wi ñoom def nañu communiqué ne dégg nañu li préfet bi wax danañu ko vérifier ndax waxam joojee lu am lam déet vox nañu jàppaan nañuy beneenub date mu di le 8 ngir beneenub rassemblement ca place de la nation ñoom waa yeewi askan wi ak seen yeneen natango yi ci opposition bi tribune mi ngi ñuy xamal ne seen recours ca conseil constitutionnel bu ñu ci wekkee yaakaar dóor nañu seen loxo ci ëkk ndax juróom-ñaari sage yi ci war a wax bu ñu sagee du loolu firndéri tribune nañu jaruta sori ndax ñoom ci seen jëmi bopp di juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel ñoo valider système parrainage yi ci élection yi te leer la leen ci waxoon na leen bu leen ci dugg ñu ci réew mi quotidien xooli yu yéeme yi xew ci réew mi seen su toll ci juróom fukki at ak juróom-ñaar maanaam 57 ans yéenekaay bi nee nañu moo faatu bëccëgu ndara kàmm ci diggi mbeddi yi ci naka journal bi mi ngi ñu koy leeralal ba dañu wax ni fii ci Ndakaaru am na benn sàcc bu ñu fi jàpp dóor ko ba mu faatu léegi ko nañu jëf jooje ma nga xewee ca ginnaaw ray sud waa jii di baabu dafa àndoon ak i gaayam ñu dugg ci génn géttu xar sàcc fa am kuy rey ko ci biir gétt gi fees ko bañ ca noppee la ñu jàppaate meneenam xar bëggoon koo ray fees ko ngir yóbbu gaañi bett leen ñu daw am ku ñu ca jàpp yeew ko fitnaal ko dóor ko ba mu dee loolu kaa waaye li ci libération it kaa ca compagnie gendarmerie bu Fatick journal bi nee nañu ak lakk la fa sooke ngir mën faa amal ak càcc yëral xët mu njëkku yéenekaay bi ku ñu naan Mayib Mbow di ab MDL chef nee nañu moo ko def Linguère la ko affecté woon mu bàyyi ba guddi mu ñëw ci biir gendarmerie bu Fatick bi sàcc fa xaalis taal secrétariat ba effacé ay trasam ba noppi daw réer ci